maanaam lépp gën a mën a jaar ci yoon waaye rawatina nag euh, màggal nga xam ne gii Touba day jël ay millions nit ñëw yokk ci la fa dëkkoon. donc loolu euh, ñi ngi ci te am nañ yaakaar ne aussi yàlla danañu suturaal ba ñu am màggal boo xam ne bi du am benn problème en tout cas loolu mooy suñu yéene boobu léegi nag ñoo fa di def ay réglages mais yaakaar naa ne dans l'ensemble tout se passe bien.